ñoo ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaan yàlla mu defal ñu ak njëkkal di ñaanal suñu xalifa général Baye Assane Seck yàlla na yàlla gën guddal fanam. bu ngeen gisee fii ñu taxaw mooy établissement maam Ahmadou Ndack Seck lan moo ko waral étudiants yi ak étudiantes yi ñoo boole seeni xam-xam ngir bëgg a découvrir li nga xamante ni moom la maam Ahmadou Ndack Seck euh, liggéey duñu guddal dañuy def directement rek. ànd ak suñu mbokk mu nuyoo wax moom mooy kan présenté ñu li nga xamante ni mooy établissement bi. waaw waaw aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk mi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci bi ñu ngi feddali suñu cofeel ci sang-sang yi Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di gën di tëbbu ci ci leer maam Cheikh Thiénaba Ahmadou Ndack Seck man la Amadou Seck nekk coordinateur convergence scolaire universitaire de Thiénaba Seck ànd ko ak ñi nga xam ne kom ni ma ko rek ñooy borom xam-xam yi léeg-léeg université yi di yàlla dogal chaque année ñuy participer si le plan euh, intellectuel pour la vulgarisation de la vie et l'œuvre de Mame Amary Ndack mooy suñu participation ñu ngi ko jëmale ji wasaare liggéey Mame Amary Ndack waaye tamit jaar-jaaram ànd ak mbokk ma Cheikh Amadou Ba li ngeen gis comme image daayira des étudiants disciple moom Amary Ndack Seck ñoo taxawal mu nekk loo xam ne ñu ànd ci ak suñuy suñuy nawle ku ci mel ni Mouhamed Fall di secrétaire général waaye Aliou Ndongo nekk le trésorier waaye tamit Baye Ousseynou Seck nekk président commission scientifique ak Ousmane Cissé nekk le président commission d'organisation mu nekk lu am solo mm, étudiants yi di ko participer ci gàmmu Thiénaba waaye ci loolu ñu ngi remercier ñu ngi euh, remercier le comité d'organisation Euh, appui euh, pour la réussite de cette de cette activité euh, scientifique et culturelle. donc comme ni ñu ko waxee rek ren jii nag ñu amaloon thème comme ni ñu ko daan defee chaque année thème bi ñu jëloon mooy Mame Momar Talla Seck Mame Momar Talla Seck le bâtisseur visionnaire ndax Mame Momar Talla daa doon Mame Amary Ndack à l'âge de 30 ans ànd ci ak ñaari rakam yi nga xam ne damay wax nii moom ñaar ñooñu ku ñu taxawoo rek mën ngaa doon leneen lu lu lu tarixa te noonu la demee Mame Ibra Penda borom nga ca wax la lumière prophétique waaye tamit borom xam-xam ba borom alxuraan ak daara borom kaamil alxuraan maam ma dikkee moom mi nga xam dañuy wax ni xam-xamam bu génnoon ci senegal li ci des du bari mu génn ci ci ci daaray bàyyee maam Amari Ndaak mi nga xam ni ci kanam tuuti di nga ku ñëw Thiénaba di nga xam ni maam Amari Ndaak moo dënd yonent bi ci leer te loolu mooy li wér euh, ren jii nag ñu ni maam Momar Talla le bâtisseur visionnaire parce que dañuy xool ci actualité parfois dafa am ñoo xam dañuy wax ci loo xam ne lu ci kër gi lu wérul te rawatina nag jamono yii ni nga xam ne dañuy wax ci maam Momar Talla ma lay wax rek ni ni la ni la Abdoulaye maam Momar mooy mooy sëriñ bi nga xam ni moo njëkk a tax moo njëkk tabax juma ginnaaw bi mu dondee baayam en 1800 euh, en 1894 tabax juma en dur beneen bi topp mooy que ni benn rek ñu ne ma Momar Talla yàlla dénkoon na ko teraanga xam-xam ba jiitoon nag wax moo doon baayam maam Amari Ndak Seck mi nga xam ni. après Samba Sadio la si waxu ni leen li ma yoroon ci zaahir ak ci baatin mi ngi ci mi ngi ci Ndaak loolu nag boo ko déggee day firndeel que ne ma wataal ak maam Rébé ne maam ma dikkee mooy xam-xam bu wóor bu tegu ci alxuraan ak sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy un islam pur et ma wataal ci loolu ci la sukkandiku comme kooku ñàkkul woon teraanga ci zaahir ak ci baatin mooy njëkk a tabax comme ni ma ko waxee juma en dur au se mooy juma ji ngay gis nii Euh, après 2000 beneen bi topp ñu ni Mame Momar Talla moo dajale njabootug euh, euh, Amary Ndag bi moo dajale njabootug Amary Makkan mais moo dajale njabootug Mama Sayar après Samba Sadio beneen bi ci topp mooy que ni Mame Mame Momar Talla teraanga wëroon na ko parce que tamit ku teraanga wër mooy seriñ bi ñëkk a dawal oto ci réew mi bokk na ci wax nañu nit ñi Mame Cheikh Anta Mbacké oto maam gouvernement Momar Talla mos na ko romb mu ni ko moom la ñu ne ko moo sekk mu ne dina fexe ci amee kon kooku ñàkkul woon teraanga amoon na ko kuy tam bay tabax ay jàkka oto bi nga xam ne ni jamono yooyu ni mu seere nga fekk ñi ko njëkk a dawal ci réew mi kooku teraanga amul woon problème teraanga beneen bi ci topp mooy kan wax rek kan ni Mame Mor Talla soo gisee ñi mu yilif rek sëñ Ibrahima Seck dafa doy kon donc moo tax suñu thème bi ñu ko ci ci Mame Mor Talla nekk le bâtisseur visionnaire muy l'architecte de la confrérie loolu dafa doy démb xalifa bi jaar na fi gaaral nañ ko ñun suñu taxawaay mu rafetlu ko am ci ay taxawaay aussi tamit waaye nag ñu ngi remercier encore une fois de la participation des intellectuels de Thiénaba à travers la COJUST lii nag c'est pas la première fois il a de cela dix ans ci toog xalaat ci rafetlu ko ñun ñi nga xam ne ñooy borom ñooy ñooy nekk étudiants yi jot sax mënatuñu ko waaye nag suñu participation ci ci lii la d'abord am yeneen projection yoo xam ne war nañ ko taxaw ngi taxaw kër ji waaye ngi taxaw tarixa bi lépp na ci ndigalu Serigne Thiénaba incha allah looy looy looy tëjee wax parce que waxtu wi daf ñoo xoj lan ngay tëjee lan ngay tëjee kàddu yi lii dañu kàddu rek mooy kan sant nañ yàlla bu baax a baax a baax a baax santaat yàlla bu baax a baax baax ci gàmm gi parce que tamit euh, liñ ci doon xaar yëpp ñun suñu côté am nañ ko waaye nag ñu ngi tallal loxo d'abord la xalif la maison xalifal waaye tamit les solutions techniques pour appui bi nga xam ne war nañoo ci parce lii am nañ beneen xalaat mais gën ko digitaliser boo xam ne foo toll ci Sénégal de nga koy seet surtout sur le plan de la communication am na ci xalaat waaye nag tamit ak le cercle des intellectuels bu Thiénaba suñu suñu mag Ndiaga Makhtar Seck jiite ko démb def nañ conférence boo xam nee naa leen conférence bu ñu ko relier woon réew mi dinañ jàpp ne Thiénaba dong ñooy gàmm parce que xam-xam bu leer bu teguñu actualité buy buy buy cuubaan euh, réew mi ñu dellu jàmm ak xam-xam donc gàmm gi pour man ñu xaar léegi sëñ bi ni isa dim lam yàqu filaa kanat dunya loolu dafa doy comme Thiénaba loolu mooy divisam mbir mi lenn la mooy jàpp ndax maam Amari Ndak indi na lépp